yow ji nga xool sa papa. mais mais sa papa a ngi nii. sa papa sa sa papa temps yi moom daa fuuy quoi. sa papa a ngi nii. quel père quel fils. Ah, sa papa a ngi nii. quel père quel fils. rey rek laa ko defoon. tey moom rek laa ko defoon. non non xaw ma rek. da da da damaa damaa dem damaa dellu Amérique moom moom mu yóbbu ma italien. ba pare waaw. lii. Mhm. fi ma ko génne laa bari. <laughs> Ousseyn jëlali. Ousseyn Ousseyn. parce que boo jëlee ko déjà dafa génn fii. Mhm. dem génn dama ko dama ko wàcc fële ci suuf. ba pare génne ko fii. mais mais njàpp Sidi dafa mel ni dalaa namoon nag franchement parlé. lu fi suuf dem ba ci yàgg tourné ma kott ko bu kott woon. ne wax ji nag na. kii kii suma doom la. dëgg la te barke Serigne Touba xale bu baax la. Mm-hmm. waaye wax ji wax ji wax ji bu wax ji bouché yow mi yaa baax. barke Serigne Bamba maa ngi ci néeg bi di solo maa ngi dégg lépp. Mm-hmm. mais yow mi yaa baax Sénégal kii dina lakk ñu bari boucher mi taxaw. Mm-hmm. moom ak Makhtar Diop suba teel dinañ lakk ñu bari. boucher yow nit nga boo xam ne dara day am am na ñoo xam ne dañuy woo booy bi ci suuf. dëgg la di ko influencer. Mm-hmm. pour mu toog. yow bokk nga ci nit yoo xam ni. doon nga ko wax bu jaree sax ma jënd géej gi pour nga ñëw. dëgg la ndax yow da war a ànd ak Sidi. dëgg la te kii xale la. xale la. jarul ñu wax ay âge mais ki xale la man yàlla dafa dogal sama waxu dem mooy ma ko tey man taalibe Serigne Saliou laa murit laa mm-hmm. kii jàppalu ma ko dara teewul ma ko dara mm-hmm. sama doom la yaayam ak papaam dañu ma ko may ni ma ko bëggee woon démb tey laa ko gën a bëgg mm-hmm. ña sax tey laa leen gën a bëgg barki borom Touba ña tey laa leen gën a bëgg te kañ nañ ko doon xam ni ñu bisi woon fii famille la ñun ñoo bokk day ñun ñoo bokk baay mais yow da nga cay nekk ci suuf ci lu ma fekkee di ci wax rafet bu si ngay bu baax ak suma producteur Makhtar Diop suba teel di ci wax tamit wax yu baax kii xale la rek ñun dañuy juum dañuy juum mm-hmm. moom bu juumee dañ ko koy nangul mm-hmm. influence bi bari woon na ci moom lu tax ngay ñëwaat mm-hmm. toogal li wëg li wëg li muy xale te daa dawul sax te te te te te kii fi ñu war a ànd daa bari xam nga tey ji man mën naa jouer concert mu neex sans jàpp oh. mais tey ji nag quoi qu'on puisse dire mm. roof yàqul jën mm. bu ca nekkul danañ ko lekk waaw waaye roof yàqul jën xorom la sii di mu ne bërëb la démb bi mu ñëwee mm-hmm. Sénégal gépp a kontaan mm-hmm. àdduna bi ñëpp a kontaan coow bari woon na man dama ne woon du ma ci wax du ma def ay sortie mm-hmm. mais yow boo ma dékkee sa caméra dama ciy wax fi may commencé mooy yow nit bu baax nga Boucher lu nekk lu rafet mais yow su ma xalaat barke borom Touba Boucher mi wax na ko ci yow sama rakk nga. lu rafet loo xalaat Boucher mi wax na ko ci di profité aussi di gërëm ñi nga xam ne démb Boucher dañu bàyyiwul seen liggéey ñëw ci soirée bi. Mm. ñooñu aw ñu seen fay. déedéet yow démb sénégalais yi da ngaa nattaat sa fi nga egg ci xolu sénégalais yi. Mm. mënoon ngaa ñëw nag ñëpp naan la wuuy. la mm. sëñ Bamba. non boobaa daal lay def sa <laughs> xam nga <laughs> Sénégal xam nga daal lay def comprendre nga. bu mhm. boobaa du neex mais da ngaa ñëw ku fa yoroon téléphone tàng ko. Mhm. da ngaa ñëw ñëpp kontaan man gis naa ñoo xam ne ma leen doon xool ñuy jooy. Mhm. ndax lan dañoo bëgg. àdduna nag sénégalais yi bëgguñu ànd bu rafet. ñi la woo di la influencer ak di wax lu ñaaw baal naa leen. wóor na borom tubaa xoolal baal naa leen. yow moom koo baal rek mais ma dama la xam ne boucher. pàcc sa Touba boucher. wóor na borom Touba yàlla du liggéey loo ko mun a moto fay. li tax yoon wi demee nii yonent bi ëppoon noonu. yonent bi moo ëppoon ay noonu Mhm. te moom la yàlla def ngeen di def. Mhm. Serigne Touba sept ans la ko tubaab bi tooñ. amuñu ci moom benn preuve. Mhm. bi mu demee bi mu ñëwee yàlla ne ko wax ma loo bëgg fi nga taxaw. fii ci pooru Dakar gii wax ma loo bëgg fi nga taxaw ma def ko. mun a nga baal ñëpp. yonent bi ko yàlla waxee dana dañoo xamul ne man maay nabi bañuñu ma dañu maa xamul. dëgg la ñii di bañ bañ sii di wala dara barke Serigne Touba Mbacke man. gis nga kenn bañu fii si kenn bañu dañu ma ko. munoo ko bañ te fréquenté woo ko. dëgg mais cinq étoiles famille la. cinq étoiles ay xarit ñi nga xam ne ñoo nekk foofu sax toog mhm. barki Serigne Saliou Mbacke ñooñu say xarit tey laa leen gën a bëgg say lépp vraiment ay xarit lañ sama ay frère lañ la xam nga lan moo lan moom solo. Uh-huh. mooy baat bi. Mm-hmm. naa fexe la tuur moo ko nammee muy gën a neex. Mm-hmm. Uh-huh. fii ak baat bi maa ngi ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall fii laa la koy waxee. Mm-hmm. tôt ou tard. bi dama koy téye. barke Borom Touba barke Sëñ Touba papa ta papa dafa am lu ma la bëgg a wax. <laughs> dafa am ay rumeur yuy daw. waaw ah, xam naa ne ah, urus nga ma koo laaj. Uh-huh. waaye nag man maa koy wax. parce que gars yi sama benn grand tey dafa dafa ma woowee Amérique direct ne ma njàpp. mere naa la ma ne ko mere lu tax nga ma mu ne ma parce que sa papa Sidi. moo la waroon yónnee xaalis nga ñëw ñibbi si Sénégal parce que damay dégg ay rumeur man koy waaw man man ko yenn rumeur mu ne ma dama dégg benn artiste bu mag da laa jox xaalis bu bari pour nga ñëw ñibbi si mm-hmm. a ne ko ah, xaaj artiste bu mag moom xanaa moom sama baay ji Sidi la ndax moom moom ma jëndal lii jox ma xaalis bu bari ma daal di ñibbi si artiste artiste beneen artiste bu yorta xaalis bëgg ma koo jox billaay na nga ko téye ndax sama baay ji doy na ma mu ngi may jox yére may sol di ma jox dàll may sol di ma jox xaalis bu bari barki sëñ tu boole koog di ma ree man lii ma gën a neex ci moo baax may rek ay love you datal daal si di yëpp si di yëpp si di yëpp